أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء fa innahu yulaasimu ma axsaa wa asaa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataakum rasulu fa xuduuh wa qaala allahu tabaraka wa taala fa man yacmal mithqaala darratin xayran yarah fa tuuba liman axada ma ataa bihi rasul alayhi bi aalihi wa saxbihi salaama mucti suul wa lilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr laa ila alkadari wa dayr wa waylu liman lam yaxud ma ataa bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bintiqa wa uusikum ayuha alixwan liwajhi man kafaani dawi alxasadi waludwan bi an laa tufaariquu maxtiira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajuru lakum alama wa kabada wa anhaakum an fi'li kulli ma lam yatabayyan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ila gayrikum al ajra walrida walthawaaba wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu alizzata min gayri alasiisi almuizz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi al aaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwaah tarakahu maa nafsihi wa hawaah wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min aljamila yaa ayuha nnaasu abudu rabbakum ittaqi llaha haytu kunt man kaana yuminu billahi walyowmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمتي قبل موته فإنه يشفع فيه عند عند مميت ميته وإن من لم يتب منهم توبة نصوها فقد أمره من وعظه نصيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم, يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله فيه للمنتخى عليه السلام بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه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 fa inna allaha tabaraka wa taala yakfiikum man abaw fihi al-ijtimaa bi jaahidi al-ghazawaati al-murdiya sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi dawi al-ardiya alhamdulillahi alladi hadaana li haada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi dellu di leen siyaara te di leen jégglu ci fukki fan yi nu toll nga xam ne amul yenn bis yu yàlla gën a bëgg nu ci def lu baax ci ñoom maa min ayaamin al amalu saalihu fihinna ahabu ila allahi min hadihi ayaami al ashra ak maa min ayaamin ahabu ila allahi an yutaabada lahu fiha min ashri dilhijja ila axiray alxadisayn bis bii nag raw ci nu war ko fonk bu baax dundal ko ci sunna si ko ñépp xame te defe ko canam gën a rafete gën ne mate yal na yàlla dimbali ci loolu dimbali na it ci moytu def ci ab safaan ndax ni ci tuyaaba di fuloo ni ci bàkkaar di fuloo te tuyaaba wax nañu ne dana ci fulu ba juróom-ñaar téeméeri yoon ak lu ko kawee sax lu soob yàlla yàlla noonu yàlla dimbale ci nuy def ay ndigalam di bàyyi ay tereem ci li des ci lim nu may nu nar ko sax te jéggal nu bàkkaari démb ak yu tey innahu huwa samiul basir wa waliyu dalika wa bihi nastajiir wa niama almawla wa niama alnasir wa ala kulli cheyin qadir wa bil ijabati jadir gannaaw loolu mbokki julli yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di jottali nu yób sëriñ bi a cheikh sidi muxtaar ayadahu llahu wa nasarah wa raahu wa xafidah di leen jottali ndokkeelam ci tabaski gii yàlla jagleel jullit ñi ñu di ko ci jaamu di ci bég di ci bégle yàlla na yàlla nangul liñ ko ci defal te fekkloo waat na ko ay yooni yooni yoon yu nuy fekk ci wér ak tal li koy jottalil tey nag dafa aju ci warteefu ku toog jataay bi mu tooge tey te mooy di sàmm njàngaleem sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ak di ko leeral jamono yii dafa am ñuy tuddoo sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu di tuddoo yoonam wi te am ay wax ak jëf yuy jóge ci ñoom yu dut yu dëppoowut ak li sëriñ bu mag bi doon def doon ko bind doon ci yar taalibe yi li sëriñ bi bëgg ñëpp xam ko te jàpp ko nag moo di ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu yàlla da ko sàmm sàmmal ko yoonam wi ba lenn lëntul ci doxinam wala ci yoonam fi yàlla jaarale sàmmam googu nag mooy may gim ko may mu wan nit ñi ci jëfam bañ xam fam nekkoon ak la mu nekke woon wan leen ko it ci mbindam walleen leen ci it fam bëggoon ñu nekk fa ñoom ak lam bëggoon ñu nekk ca yar mbooloo it mudul jeex ci loolu kon nag lii mu fi jëf ak lii mu bind bàyyi fi ak ñii mu yar ca lam bëggoon ci la ñuy war a xame li nu mën a xam te war koo xam fi moom ci la nu war a xame it ni nu ko war a jàppe ak ni nu war a ànd ak moom cëslaa yooyu nag sëriñ bi nee na liñ ci xamee te mooy lu leer nàññ moo di ne sëriñ bu mag bi radiyallahu an lim fi nekk lépp jaamu bu yàlla buy liggéey katub yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la woon ظللت عابدا خديما للرسول من عام أيسس إلى عام الرحيل des naa di kuy jaamu yàlla kuy liggéeyal katu yonent bi li dale ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn ba ci atum génn àddina man zanna anni gayru abdullahi wa gayru xaadimi nabi fasaahi ku jorte ne doon naa lu dul jaamu bu yàlla bu koy jaamu tey liggéeykatu yonent bi ku juum la kon laajub sëriñ tubaab mooy kan tont li yomb na abdullahi wa xaadimu rasul laneen luñ ci dolli lu mu gudd gudd ay tafaasil rek lay mën a doon liggéeyam it yeesal lislaam la woon te mooy jubbanti niñ ko jàppe woon te du noona ak niñ ko daan dunde te du noona diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda ilaahi wa bihi jaddidu diine ju lislaamam ji dees ko gërëm fa yàlla yàlla du ko nangu te diinam jooju it laa yeesal jaamu gi ak liggéey bi nag da cee sukkandiku ci alxuraan ak xadiis ba yàlla def mbindam moom sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mu gënal yàlla ci lem ko xamal tem xamal nu ko gënal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maneen mbind mu dul alxuraan ak xadiis banaytu taatiya bittibaayi bi zikri wa sunnati wal ijmaayi sama topp yàlla maa ngi ko teg ci topp ay ndigalam moytu ay tereem kem ni ñu dikkee ci alxuraan ak sunna te woroom xam-xam yi xam alquran ak sunna te topp ko daje ci ci biir jaamu yàlla googu it ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ko yàlla yubboo fu sori jagleel ko may yu bari yu saahir ak yu baatin yum wax ak yum waxul anaalani kitaabu rabbi sirra bihi yubaahi dhul baraaya al qaada liya alqur'aanu maa laa adkuruh min minanin min xayri rabbin ashkuruh téeréb sama borom bi may na ma mbóot moo xam ne borom mbindeef yi da ci won màggaayam di ci won kattanam jaamam yu tedd yi nga xam ne ñooy jëf jëf yu tedd yi alxuraan andil na ma ci xéewal lu ma dul wax te lépp di yiwu boroom bi nga xam ne moom laay sant sëriñ bi nee na lii mu jottalul mooy li wér ci la sëriñ bu mag bi radiyallahu bëggoon nekkoon ci la yoroon ñam yoroon nun ñii it ci lañ fekk sunuy waajur kon nag war na noo maase xam ne képp ku wax lu wuute ak lii waxi boppam la wax ju mu jëlati xalaatu boppam wala xalaati kaneen wala ñeneen te mbirum diina nag deesu ci wéye xalaat ak xelum kese wala ay yëg-yëg waaye ci xam-xam lees ko war a teg ak ndigal sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla mu taxawunu ñun ñëpp te may nu tawfiq ban tënku ci njàngalem sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu moom mi doonoon ab jaamam doonoon liggéeykatu yenenteem ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na mi ngi ñaan yàlla defal nu ci nawet bii naataange juy doon xéewal lii mooy liñ ko doon jottalil nu di ko ñaanal moom fan wu gudd ak wér ci anam yépp ba liggéey ci diine ji ak yoon wi bi shaklin xaas lu kawe ñor njul kawe njortam ten bokk fekke tàndu koog moom mbokki ujaar yi yàlla na leen yàlla sàmm sàmm mbokki julli yeñ fay dajeel yépp dolli jàmm ci réew mi te saxal ko fi xeexu biir kër yi am ci diggante yenn réewi jullit yi tey jàmbur dugg ci te jur du jur lu dul jullit ñi gën a néew doole ca kanam jàmbur yooyee di seeni noon yàlla na ko yàlla jeexal boole leen bañt mënata seeni noon innahu waliyu dalika wa bihi nastajir kulla aamin wa antum bi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu